الله أكبر الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله nabiina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala amma baad bokki jullit yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk nu bokk ànd taxaw tey ci benn xissa ci xissa yi alquran di nettali xissa benn yonent ci yonent yàlla yi yonent boo xam ne ci moom lañuy ñuy joxe misaal ci muñ yonent boobu mooy nabiyullahi ayub alayhi salaam suñu tuddé muñ rek faun ñu tuddaale ayyuba alayhi salam. ndax mom day dalon nako ci xeeti nattu ak xeeti bala lo xamné ne kenn mënu ko muñ lu ko yalla dëgeural ko ku defal tawfiq suñu borom tabaraka wa taala mi ngi tuddu mbiram ci suratul anbiya mu ne na nga fàttale ayyuba ci alquran ba mu wooyee boromam diko ñaan ne sama borom day lor dal na waaye yow day yaay borom yërmande ju mata ji mboolem kuy am yërmande yaa ko ëpp yërmande wa anta arhamu rahimin borom bi nee na man nangu ñaanam mu daal koy teggil li ko daloon ci lor delloo ko njabootam gim ñàkkoon tegal ko ca sax lu tol ne loola mu ne loolu lépp nag yërmande la ju bàyyi koo ci man lool nag ak waara ngi ci ci ñiy jaamu yàlla borom bi dellu tuddaan mburam ci suratu saat ne na nga fàttale mbirum ayuba ba mu wooyee boromam di ko ñaan di wax la ko dal ci jàngoro suñu borom tabaaraka wa taala digal ko ne ko kët daal sab tànk ci suuf mu dóor tànkam ci suuf ndox mu sedd dal di génn mu dal koy sangoo dal di koy naan dal di wér mel ne dala mos dal borom bi na jaam boobu day nattu naa ko waaye fekk naa ko muy ab muñkat inna wajadnaahu saabiran ni'mal abdu innahu awwaab suñu borom tagg ko ne cëy boobu jaam jaam boobu day dellukat la ci boromam dara du ko dal mu feebar mu saali di dem ci jibar wala muy dem ci ay boroomi xarga fuufa waaye ci borom bi la dellu ñaan ko borom bi ne fastajabnaa lahu nangu naa ñaan ko xissab ayuba alayhi salaam ci tënk benn waaye la woon boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koo jox alal mbooleem xeeti alal da ko koo defal moo xam ak jur la moo xam ay jaam la moo xam ay suuf yu yaatu la yooyu yëpp ayuba amoon na ànd ak nag am njaboot gu baree baree baree bare mbokk yi gën xéewal mu ëpp googu xéewal ndax borom bi tabaraka wa taala nee na kat xéewalu àdduna moo weesuwul ñaar rek alal ak al mal wal banun zinatul xayaati dunya mboolem li am ci aduna lool rek lañ koy doye waye suñu borom tabaraka taala ci ak xereñam bëgg na nattu jaamam bobu di ayyuba alayhi salam bëgg na nattu itam ak muñam waye ayyuba alayhi salam jàll na ci nattu bobu ndax suñu borom ba ay jeex daf ne mom day nattu nako waye fekk na ko muy ab kat inna wajadnahu sabiran mu ne kon day bobu jaam mom yeyona aw tag ndax liko waral moy luko dal rek ci boromam tabaraka taala lay del yalla nattoo ko tagale ko alal ja tagale ko njabot ga mu dem ba amatul dara waye ñu dolel ko ca beneen natt bu gëna metti nak muy febar bu ko dal ci yaramam xéti febar yu bari yo xamni nak alquran alquran ràññeet wut febar ban la nit ñi wax nañ ci wax yu bari naan ay sax da ko daan direk ay sax ak ci nekkon ci mom waye loolu mom alquran wax ko febar bu metti dal mo nekkon ci mom febar ba dem na ba metti ba nit ñi kenn bëggatu ko jégé ñepp bayiko dañ ko mujj sax genn dekk ba kenn rek la dese woon ci ku koy topato di ko moy soxnam fofu itam jigen ñi nañ ci jàngi bind sooy ànd ak nit ca ba muy jekk ba muy man teranga di am suñu demee ba nattu am ñàkk am feebar am tumuranke am foofu la ñuy xool nag ngor foofu la ñuy seet itam koo xam ne ànd bi yàlla taxoon wala ndax aduna taxoon soxna soosu moo ko daan seeti fañ ko génn ca gannaaw kër ga ca gannaaw dëkk ba ndax bañ mu wàll leen waa dëkk bi ne kii duutu na ci dëkk bi soxna sa moo ko fa daan fekk di ko toppatoo di ko jox lu mu lekk waaye soxna si dem na ba amatul dara ba mujj daa dem di mbindaanu di liggéey ci kër nit ñi ñu di ko fay lu mu ca jëlee mu jënde ko aw ñam yóbbul ko borom këram. waaye ñi ba ñu ba xam ne kii kat ndeke soxna Ayóob la kenn nangootu koo jël mbindaan ñu ne kii koo jël ci sa kër boo tuul feebaru borom këram bi dana la ko andi ci sa kër dana la wàll ñu bàyyi ko kenn nangootu koo jël ba dafa mujj ay kawaru boppam ay léttam moom la dagg jaay ko koo xam ne doomi buur la woon waaye dafa amul kawar mu wat kawaru boppam jaay ko koku ngir man ca jënd lo xam mom la jënd aw ñam bi mu andee ñam woowu ayóoba li muy sonn sonn da ko laaj ne ko waa foo jëlee ñam bi mu ne ko dama doon liggéey mu ne ko déet wax ma rek fi ko bo ma waxoon fo ko jëlé duma lek ñam bi mu daldi di dindi musor gi rek mu xol bopp bi set wecc ayóoba daal di ci boromam tabaraka taala ne anni massaniya yadur wa anta arhamur rahimin yalla day lor teg nga ma mana li doli ko la ci nattu bi nga ma dem ba sama soxna di wat kawaru bopam di jaay kawaram ngir bëgg maa wutal lu ma lekk waaye borom bi tabaraka wa taala ci yow rek la ñuy delluwaat yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ki gën a tar nit ñi ci am nattu mooy ab yonent mu ne topp ca ku ca tege topp ca ku ca tege ku la ëpp cër ci yàlla rek kooku moo la gën a diis ab nattu moo tax mu ne danañ nattu nit ki kem fi diineem toll bu diineem dëgëree ñu taral ab nattoom lool bu diineem fee nag ñu natt ko lu tolloog diineem rek mu ne nattu du denc nit ki di denc nit ki ba muy dox ci kaw suuf amatul benn bàkkaar ndax natt yi soo ko muñee day setal say bakkar mbokki julit yi ba suñu borom tabaraka wa taala namme tagale ko natt boobu lu jàpp ni la ci suñu borom da koo digal rek ne ko kër dal ci suuf mu da rek ndox dal di ball ndox mu sedd guyi mu digal ko ci ne ko sangu ci da nga naan ci urkud bi rijlika haasa muxtasalun baridun wa sharab loolu de ndox mu sedd la moo xam ne da nga koy sangoo naan ci ba mu ko sangoo li won ci kaw yaram daa wér ba mu ko naanee la woon ca biir lépp wér mu dal di wér biir ak biti suñu borom tabaraka wa taala wéral aw yaramam dàq mboolem lu nekkoon ci moom ci lor waaye itam nag delloowaat ko alal ja mu amaat alal lool amaat njaboot lool melaat na meloon moo tax borom bi ne wa aataynaahu ahlahu wa mislahum maahum borom bi ne loolu lépp nag yërmande ju bàyyi koo fi man moo tax ma defal ko ko waaye itam nag ak waar la ci yéen ñi fi nekk tam di jaamu yàlla ngeen jànge ci ku nattu dalati lu metti metti betti bu ñu la proposé lenn loo xam ne lu naqari yàlla la ba ngay dem ca loola bàyyi yàlla dellul ci yàlla rek lu métti métti rek bul bul ci boole bokkaale bul ci boole njibar bul ci boole lenn wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala saa yu ko bëggee teggi rek dana ko tegg te su ko teggee itam mbooleem la mu la xañoon borom bi tabaraka wa mën na la ko delloo suñu borom tabaraka wa taala ngi ñuy xamal ne nattu moom fokk lu muy doxal ci bindeefam yi mu ne la tubla wunna fi amwaalikum wa anfusikum danaa leen nattu ci seen alal yi danaa leen nattu itam ci seen bakkan yi waaw nit mën naa laaj ne waaw lu tax jaami yàlla yu baax yi lu tax yàlla di leen natt ban secret moo nekk ci natt boobu la ca ne ciy secret day suñu borom tabaaraka wa taala rek moo ko xam waaye am na ci juróom benn yëf yoo xam ne mën nañ ko caa xamee bu njëkk bi mooy nattu day far ay bakkaar jël nañ ci abi saïd al xudri mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne amul dara loo xam ne dara dal ab julit ci ab coono wala aw naqar wala aw metit ba ci sax ak dégg nee na lu dul ne suñu borom tabaraka wa taala dana ko ci faral ay bakkaaram bu fekkee muñ na ko delloo ko ci borom ñaareel ba itam danañ ci jële ay daraja yu kawe yàlla bëgg na laa yëkkati daraja yu kawe te sag jaamu yàlla yëggu yëggu fa sag jàmbaare yëggu fa la la ko yàlla yëkkatee mooy dalay teg nattu boo ko muñee rek mu yéegal la ci garaat bu kawe kawe kawe boo xam ne sax waroo foo dayeg ñetteel borom bi tabaraka wa taala dana ci delloo nit ki njukkal su muñee natt boobu lim ko xañoon ci àdduna ba ñëpp di ko reetaan jàppale kii mbiram jeex na suñu borom yëkkatiwaat mbiram ba mu kawewaat ba mu weesuwaat sa fa nga xam ne fa la toll woon ñeenteel ba borom bi tabaaraka ko taalaat ci nattu yi ci lay seetal bakkan yi bakkan bi nga xam ne da doon boole yàlla ak leneen bakkan bi nga xam ne da doon wéeru ci leneen bu ko yàlla nattoo ba yooyee mu doon yaakaar yépp seetaan ni ko wolof yi waxee léeg-léeg ni kii de yàlla rek a ci des yàlla rek a ci des su ko defee bu ca génnee war naa xam ne kon waratu la booleeg yàlla ak ndax ba demee ba metti dañ ne yàlla rek a ci des maanaam ñam ci doon boole ñëpp bàyyi ne ñëpp génn nañ ci ba yàlla rek a ci des kon nag soo jógee ci coono ba itam gannaaw bu yàgg bu méttee yooya dem seen yoon bàyyi la fa kon nag bu méttee te itam bul ci boole yàlla ak dara yooyu ci yi ñuy jàngee ci ay nattu la bokk juróomeel ba itam suñu borom ci nattu ci lay feeñal nit ñi dëgg dëgg dëgg ndax bu nattu amut kenn ku ne da ngay wane ne muñ nga ñii di wanee ne dañoo dëddu àdduna ñii di wanee ne dañoo baax waaye bu nattu ñëwee rek ci la nit ñiy feeñ bu nattu ñëwee rek muñ kat ki ne woon muñ la ci ñuy xam xam muñ kat la am ki ne woon daa dëddu adduna ci la ñuy xam ba xam dëddu am de ki ne woon daa doylu bu nattu amee ci la ñuy xam ba xam doylu daam de kon nattu day feeñal nit ñi moo tax borom bi ne li lu yabluwakum ayukum ahsanu amala juróom beneen ba itam ci nattu da nga ciy roy ci ñu baax ñi la jiitu woon ay nattu dal leen moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam sax suñu borom da koo digal ne ko muñal ni yonent yi la jiitu woon nañu muñe woon seeni nattu muñal loolu fasbir kama sabara ulul asmi min ar rusul na nga muñ comme yonent yi nga xam ne ñooy ulul azmi mu yonent yi gën a yëkkatiku daraja muy noox ak ibrahim ak moussa ak isa ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko comme ci ñooñu nga bokk yonent yu kawe yooyu te kenn ku ci ne nattu naa ko nattu bu tara tara tar kon nag muñal nañu muñewul kon nag mbokk yi yii ay bind la yoo xam ne dañ koy ci war a jànge xam ne léeg-léeg loo baax baax baax baax du tee yàlla nattu la ndax ñu bari kat moom mooy ay xéewali addunaam yu mu am rek ñu ne yeyoo na lool waaye su ko yàlla nattoo su ko defee ñu ne kii li ñuy baax lépp kii da defa torox kii da yàlla da koo alak kii da nangam nangam te fekk na ñu ko gën a baax ñu ko gën a kawe dara de ku mel ne ayooba mii di yonent feebar dal ko ba kenn nangootu koo jóge ñu génn ko ci ginnaaw kër ga sànni ko ku mu daaloon fii tey dañ naan kii daa alku kii daa alku mbiram yàqu na te fekk na nattu suñu borom tabaraka wa taala dong la kon nag nattu bu la dalee lu métti métti métti bu mu tax nga saalit mu tax nga jàppale yàlla di laa mere waaye dellul ci sa borom wéeru ci moom saa yu ko bëggee teggi rek dana ko teg yàlla nu yàlla boole ci muñ ko de yàlla nu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy sax ci seen diine wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain